salaamaaleykum sama gars yi ma ñëwaat seen dossier boobu dossier xaw ma nan lañ kaa tuddatee sax dossier eh, puus puusal ma jàmba mooy dossier ñaa moomu damaa bañ a tudd booy ñaa kooku ñaa ñu ne lañ ko lii la kat <laughs> te ngeen ne ab gis moo ko àtte nañu def wallaay la dem c'est que yéen da ngeen dema dema dema dem ba maanaam safatu sax nit ñi waaw da ngeen dema dema dema dem ba safatu leen ñi lépp leen def rek nit ñi dañoo xool nii rek xam nga amatul maanaam amatul amatul sensation amatul benn amatul benn cafta waaw amatul benn benn guub déedéet non nëpp la ku leen noppaliku leen ni ngeen di jaabantelee ñii nga xamante ne euh, Ayib Daffé mi nga xamante ne moo jëli ji ay fils de jege DG dem CDC jege CDC dem ministre ministère de l' pour lan la loolu pour la la yéen fan lañ ko teg maa tey jaay doole loolu du dem instant yi li ngeen bëgg mooy booy wàcc xeex rëjë rëjë rëjë rëjë ngeen pousse élection yi bu soobee yàlla duñ xeex li ngeen bëgg du leen si fekk si te Ousmane Sonko dina nekk candidat dina nekk candidat waaw ngeen yaakaar ne conseil constitutionnel dof na conseil constitutionnel bi ngeen yaakaar ne dof na dof gaa xamante ne euh, euh, ñu dem ba foofu mën a rejeté fii si Ousmane Sonko ak injustice bi ngeen teg yëpp ak juge li mu ko joxee dëgg hmm? di topp si ginnaaw noonu di xawma huissier bi lépp laa noté ba ñu demee présenté que euh, euh, conseil constitutionnel ngeen a xam loolu ah da ngeen di sonal seen bopp wallahi da ngeen di sonal li ngeen def ni ñu fi ñàkk fayda la yéen bu fekkee ne da ngeen liggéey bu fekkee ne da ngeen réaliser Sénégal dangeen ngeen liggéey Sénégal leena bañ nit ko bokk te moom lañ gàttale bokk jàng ngeen ko doole ba tëj ka créer seen faux dossier euh, teg seen i pexe. ah barke Seydina Muhammad billahi wallahi watallahi képp kaa xamante ni yaa ngi si lii si salku yii ah, di si jàppale di si jàppale ñi kaa def wallahi azim dañ ko di nga tëdd feebar di nga AVC bii gën a sës nag moo la faatu fa yàlla parce que caaxaan baaxul gor doo ko topp bu mu sës doo ko sosol di ko waxal laa xamante ne amul bëgg kaa toroxal bëgg kaa pamte pamte kooku day riposte te riposte peuple bi la am bu fekkee ne si loo leen sukkandiku ba nga naan moom neex nii léegi nit ñi sax xam nañ ni sax nit ñi dañoo dem ba del leen jëppi parce que ay tappalakat ngeen waaw ay tappalakat ngeen li si kanam nag Rogo Louga ay focus 2024